gis nga euh, doomu ndey. Mhm. fexe ñu wóol na moo gën ñu bañ laa wóol. Mhm, merci. Euh, ma xam nga euh, porte parole takk der yi dafa rëy. Mhm, oui c'est <laughs> maanaam maanaam maanaam information yi. maa ngi gis ñu naan non di koy jox information di koy jox information. weesu nañu foofu. non non yenn saa yi du police ñuy jox information. ma wax la ko tey. pour day mel ni kon police enquête bu mu am day ñëw rek jox ko journaliste yi wala day ñëw rek. non non déedéet da ngeen am seen ay propre sources itam. dañuy am lu ñuy def. Mhm. am suñuy source ni police di defee man bi bi bi ñu reyee Aziz bokk naa ña fa dem ci heure boobu. waaw. yow naa la ko. waaw nee nga ma ñu sax du dimanche. du du du dimanche. du dimanche foog naa ni lundi. lundi la lañ ko war a rey. waaw. wala bu ñu ko dee rey dimanche dimanche si ay côté minuit. te bu ñu duggee ci minuit. mooy dugg nañ ci lundi bi parce ay dañuy xalaat mais kenn ku nekk après dangay xool fi ngay wutee information nga dajale ko ba am lu wóor sañ koo wax boo amul lu wóor duñu wax xam nga lu tax man euh, asma ma ma mooy su ma dee wax ci benn mbir mhm. damay sóoraale ñu ko xam mhm. ñu xeeb ma mooy sóoraale ñi xam dossier bi ma xeeb mhm. voilà <laughs> merci beaucoup tonton Diaga Colombo ah. waaw <laughs> oh, ah waaw inspecteur Colombo. Ah, ah. ah man depuis depuis mercredi moom noonu laa koy woowee. voilà voilà voilà inspecteur Colombo. aywa merci beaucoup ah suñu waxtu jeex na nag. Mm. ah di la jaajëfal di la jaajëfal Asma neex euh, Diouf moom itam ak sama càmmiñ Ousmane euh, Ousmane euh, Sow mu ngi nekk ma sama càmmiñ lu baax la li leen jaajëfal ñi nga xam te yéen a jàkkaaroon ak ñun ñeen ñëpp ñu nekk fii ci Yoff kër madame Diagne ñoom itam naa ngi leen di jaajëfal Guèye ñoom ñëpp rek macha allah jërë ngeen jëf ci ànd bi merci beaucoup tonton Diaga jërëjëf. ñoo ngi lay jaajëfal lépp loo xam ne bees na ci tey wala suba. Mm-hmm. dina ñëwaat ci plateau bi leeral ko. sa wax bi nga ma doon wax ah dans la semaine. mi ngi léegi mu ñëw nag eh, ah léegi mu ñëw. en tout cas merci beaucoup mais euh, euh, dafa am ñu ma doon woone ne ma tonton Diaga dafa war a def mhm. peut-être euh, le cumul des personnes yi ñu rey mhm. ci ay faits divers bu ko defee ñu ñëwaat ci crime yooyu en mhm. attendant peut-être l'évolution sur ñi rey Aziz ak Wali bu ko defee ñu fàttali ku ne loolu yàgg na fi itam te ay nit yu jege ñoo koy def ah kii rey te lakk ba pare naan rey lakk Pierre xaw Ah. Euh, Pikine yëg nga ni jamonoy jamonoy période màggal bu nekk ñu rey kenn mhm. nga yëg ko ak nga bañ koo yëg mhm. souvent su ma dee dégg ñu naan diw nan lay reyee Aziz diw lu tax mu bokk ci mais nit rey na rey na na rey na jëkkëram te jëkkër a gën a jege ci yàlla suñu borom Binta Camara kan moo ko rey chauffeur papam homme de confiance papam euh, euh, kii Ndiaye nu mu tëddati Pikine son son chauffeur. di doomam teg ci. waaw parce que da koo doomoo woon. waaw ah jooja. ko rey. ki ko doon ñaanal. waaw c'est vrai. kii ñu taal côté Ndiassane xaritama ko rey. oui Pierre là le. depuis deux mille ba deux mille vingt trois ku ñu rey bu enquête bi feeñee rek dañ naan diw moo la rey. il yow waxuma la woon fii le euh, euh, mercredi. waaw man la ñuy rey Aziz dañoo xam asi waaw wax ko ko. te te lii daf ñuy hmm? daf ñuy interpeller ci ñu interpeller l'Assemblée nationale ak le go l'actuel gouvernement l'actuel régime est-ce qu'il serait pas temps de voter la peine de mort euh, euh, bu ko defee comme ki jege mooy rey à chaque fois ka jege kooku bés bu la jege bay xalaat ci yow rey dana xam ne ni dinañ ko rey. dañ koy rey falaa ah. mais kii rey da am lu ah. ba muy rey ñu bari na dañoo daw nag songaat heure de émission heure de crime yi may def. waaw fii ne moo ngi dox bu baax a baax. waaw waaw yàlla na gën a dox. waaw <laughs> na gën a dox. aywa mi ngi noonu merci beaucoup Chantal Malou. non man sama sama de cœur sax mooy peine de mort yan condition lañ koy. lañ ko war a teg waaye loolu. c'est une proposition de loi. c'est proposable ah. ah gars yi nañ def loolu nag te yaa booy. yaa booy ay kii nañu maman. Eh, amatuñu ko amatuñu ko moo tax dañ ko war a indiwaat. waaw dañ koy proposé ñu indiwaat ko rey la ñu xam ne xëy na ëllëg dissuadé ku bëgg a public waaw c'est ça du noonu waaw en tout cas merci beaucoup ñu ngi remercier ñi ñu doon seetaan et mm-hmm. j'espère que liñ fi wax amal na nit ñi njariñ